dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit ginnaaw musiciens yi tey dem nañ ci comédiens yi ngir taataan seeni i jooyu xol jooy yooyu benn la te moo di dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñu daal di dooraat seen yëngu-yëngu ndax ci loolu le lañu mën a feral seeni rangooñ am ci lu suturloo ba nga tàllal loxo te bañ a xaaw yi seen sutura boobule. babaay xanaa dañoo lii la ñu am lii bu ñu ko teree fan la ñuy jëm lii la ñuy yóbbu kër ga nañ ñu bàyyi waay nañ ñu ñu liggéey ñëpp ngi liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey wala da ngeen bëgg ñu dee. liggéey ngir jëriñu liggéey ngir faj seeni soxla te kenn du leen xamal liggéey ngir doon ay nit yu ñu respecté di leen wekk loolu la artistes yi di laaj ni ki tey nañu déglu bi la yoon waxtaan bi ñu seq ak kenn ki ñoom di Bachir Sy jiite groupe Espoir de la banlieue di troupe théâtrale boo xam ne ay xale ñoo ci nekk yu xarañ te di yëngu ci wàllu théâtre artistes yu bari jamono yi ni ñu war a dundee li nga xam ne mooy tax ñu nekk doomu aadama tidi loolu dafa sooxe loolu li tax mu sooxe mooy koom gi ñu doon am ci seen liggéey amatuñ ko koom googu nag ñàkk ñëw ki muy ñàkk ñëw ci dunduk artiste bi moo yóbbee artiste bi tey bu fekkante ni ku doom luwee nga mën a too fay luyaas kon bu ñu la génnewul it ñu ngi lay waaj génne boo nekkoon ci sa biir famille am loo tekki di jaajëf ñi waa famille bi di am looy def la nga daan def defatoo ko boo nekkoon kuy joxe dépense loolu amatul kon bu artiste bi demee ba lekkatul suur naanatul màndi bu tëddee du nelaw ndax xam na ne bu dee ci luyaas la nekk fayul moralement dañuy affecté commencement bi bi ñu nii woo artistes ñu jàpp ci mbas mi ku nekk fent na indi xalaatam andi ay pièce théâtre andi ay way ku nekk andi jouer partition comme ni mu waree mais léegi dafa mel ni sax même inspiration sax fu mu nekkee amatu leen ko. waaw dëgg ju wér inspiration sooxe na ndax li tax inspiration sooxe mooy xel mi dal mi nga war a am mu mën a màcc di xalaat nekkatu fi fit bu dal bi nga war a mën a am ngir inspiration bi am fu mu sukkandiku ngir bu génnee ku ko déglu xam ne lii am na gëstu bi ci am nekkatu fi waaye tey bu fekkente ne yeneen liggéeykat yëpp jàpp nañ ñu ñoom war nañoo mën a dellu seen bërëb liggéeykaay ndax dañoo war a sauver économie bi mais artistes yi dañoo am lu ñuy portifié ci les nasaraan économie créative boobu am na lu ñuy dugal. ndax justement néewal boobu ak ñàkk saytu dayoo boobu économie créative bi artistes yi di yëngal ci wàllu koom-koom autorités yi dañ ko néewal ba xamuñu lu muy jar xamuñu njëgam xamuñu dayoo moo tax ñu koy soppantal wala. so ak soppantal am na ci. waaye ak ñàkk xam li nga xam ni moom lay jur. maanaam taxawaay artiste ci économie créative ñàkk xam li ñuy jur bokk na tax li tax tamit dégluwuñ ñu wala ba bàyyiwuñ ñu xel ba li ñuy wax ni ñu muy jësi ndax jot na nag ñu bàyyi ñu dellu ci liggéeyukaay yi daal di liggéey ñàkk xam googu boo ko dee natt tey euh, xam nga euh, festival bi nga organisé bu dee festival bu international la ay nit di jóge bitim réew di dagg billet avion di ñëw di seetaan ci dugg suñu hôtel yi di meer bi jaay caaf sax ñooñu ñu mën a jënd caaf gi sàq mi am na lu ñuy dugal ci koom mais boo jàppul ne artiste bi taxawaayam loolu yëpp mun na ci am kon doo xam moom lan la war a mën a indi koomu réew mi bu ñu demee tey ba artiste woo la ne la sama téléphone bii ma doon wuyoo dama koy jaay kon ñu war a xam ni artistes yi yegg nañu koo xamante ni sonn nañu lool lool loof nañ kon ndimbal li xam ne ñëwoon na fajul dara mun nañ ko wax kon waaw ndimbal li nag balaa dara xew du ñu xeebal lim ñuy yéenal ba defal ñu ko. kon ndimbal loolu weesu na. parce que ndimbal yi tey boo ñëwee si comédiens yi. donte ne ñëpp amul benn nit. ñu toog plus de quatre à cinq mois liggéey ñu di jox la trente mille francs. artiste comédien bu ne. trente mille nga jot te du ñëpp a jot. trente mille mooy mille francs la. par bis bu dee weer trente jours. léegi ñun ba ñu arrêté ba léegi. depuis le quatorze mars. ba ñu dugg mois de septembre kon li am ni tey nañ jàpp ni ndimbal loolu weesu na trente mille fayul lu yaar trente mille jëndul saako ceeb trente mille demul jënd ordonnance trente mille fajul sa jabar bu nekk ci état. boo leen xayma par exemple yow espace de la banlieue. nga <laughs> ngeen ñàkk. par exemple yéen bokkoon xayma seen chiffre d'affaires nga ngeen ñàkk ci weer yi ngeen toog yëpp bokkoon xayma. waaye yow sëñ bi bu ma la waxee rek xayma lu ñàkk boo ko waxee day mel ni puukare wala wala leneen la parce que suñuy moroom di dund mais dinaa la ci jox ay misaal. contrat bi ñu mujjee ñàkk bi nga xam ne après huit mars ñu ngi ko signé benn organisme bu ñuy wax banque mondiale ñu war a ànd ak ñoom célébrer huit mars te xam nga ni banque mondiale lu ndaw. dëgg la contrat boobu dañ ko ñàkk. Hmm. mujjul am parce que dañuy tere rassemblement. production dañ ko daan def dañ daan dem ba une semaine de sept jour les cinq jours dañuy nekk en production te des contrats lay doon mhm. mais waxuma la production depuis euh, ba mbax mi amee ba léegi benn contrat lañ ci am te contrat audiovisuel la pour spot publicitaire pour le ministère de la jeunesse te contrat boobu buñ la daan fay juróom dañ la ne ñun amatuñu xaalis benn lañ la ciy fay kon tey waxuma la li ñuy ñàkk mais daf ñoo yóbbu ci ñu wàññi suñuy artiste bu ma la nee wàññi nag liggéey ñu naam mais maanaam bu ñuy reprendre atoon du ñu mën a demee niñ doon demee ok il faut am ñoo xam dañuy toog. loolu yóbbee nañu si ñun Espoir la banlieue bokk nañ ci ñu taxaw. di jaay matériel. pour ñenn ñi ndax dañoo nekk si ay jafe-jafe. Hmm. te du lu ñu mën a wax. kon bu ñu xayma tey. mën naa la ni weer bi. dañ daan taxaw minimum minimum dans le mois dañuy mettre dañuy am vingt à vingt cinq production dans le mois. benn sax amuñu ko. ban message kon ngay lancer autorité lu ñuy wax de ñun artistes yi. mooy sunu message jooy nañ fu ne. wax nañ fu ne. mais buñ ñu bàyyi ba ñenn ñi dee. ñu soog a taxaw ne artistes yi yarloo nañu ndimbal heure ndimbal weesu na ci wàllu lañ toll nañ ñu wax waaw ñun wàllu si wàllu lañ toll bu ñuy wax nag dañuy wax ci turu artiste yëpp naan na am na ñu gën a metti la mais metti na parce que ñun li ñuy dund te nakaaru la nekk am ñu nekk ci région yi ñu ngi dund lu ko raw fuuf am nañ ay plateforme yoo xam dañ ciy waxtaane yàlla xam na ni da ngay gis artiste boo xam ne day xëy di la ñaan ne la envoyé ma mille francs wala dara yu ma jëndee ndékk dafa daw yaram lu metti la artiste yi di dund jamono yi waaw loolu moom ñi ngi ci sàkku ndimbalu gouvernement ñu delloo artiste yi seen dignité te delloo leen seen dignité mooy may leen les opportunités ñu dem liggéey respecté nag le protocole sanitaire li ñu dëppoog loolu waaye li ñu bëgg rek mooy ñu comprendre ni soxla nañu wàllu jamono yi fi lañu ndarkeppe seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Après les musiciens, place aux comédiens pour le même et unique cri de cœur, les artistes du Sénégal veulent reprendre leur dignité en relançant leurs activités économiques et créatives, des activités qui leur garantissent un bien-être social, économique et même psychologique. Ablaye xanaa dañoo téye batterie yi moo tax nga jël kaan waaw xam nga lii la ñu am lii bu ñu ko teree fan la ñuy jëm lii lañuy ñuy yóbbu kër ga nañ ñu bàyyi waay nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñëpp ngi liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey wala da ngeen bëgg ñu dee. Suivons cet entretien avec Bachir le responsable de la troupe Espoir de la banlieue, une troupe de théâtre regroupant plusieurs jeunes de la banlieue. Nous sommes en train de vivre les manifestations négatives de la pandémie et nous sommes en train de les vivre difficilement. Quand des artistes n'arrivent plus à se soigner, quand des artistes n'arrivent plus à subvenir aux trois repas journaliers, quand des artistes n'arrivent pas à gérer de loyer, quand des artistes n'arrivent pas à régler leurs besoins primaires, vraiment il est l'heure il est l'heure de venir au chevet de ces artistes-là. Voilà le stade où nous nous trouvons aujourd'hui, nous les artistes du Sénégal, euh, particulièrement les artistes comédiens. Vous êtes resté pendant tous ces mois-là Qu'est-ce que cela représente pour vous Énormément de pertes à notre niveau. Des pertes qui peuvent être évaluées en termes de finances, des pertes qui peuvent être évaluées en termes moraux, parce que déconsidérées dans nos familles, des pertes qui peuvent être également mesurées en termes de représentativité au sein de notre société, parce que l'artiste avait ce rôle de premier plan de jouer, euh, de jouer dans les consciences. Aujourd'hui, dans l'action collective les artistes D'autres sont en train de suivre pour sauver l'économie, mais les artistes sont délaissés parce que ne sont pas considérés comme des éléments pionniers de cette économie-là. N'est-ce pas là un problème de perception des autorités qui pensent que l'artiste ou bien la, la, culture ou bien l'art globalement n'est là que pour consommer au lieu de produire. Tout à fait. C'est une question de perception d'abord. Perception en ce sens que beaucoup considèrent que nous ne participons pas à l'économie nationale. Beaucoup considèrent que nos activités ne sont pas aussi intéressantes que cela. D'autres considèrent que nos activités ne sont que des moments de récréation qui ont vocation de divertir. Or, l'activité culturelle peut générer des

30 000 francs ne peut pas prendre en charge une location annuelle, pour ne pas dire mensuelle. 30 000 francs ne peut pas prendre en charge des soins médicaux. 30 000 francs ne peut pas gérer une vie pendant 4 à 5 mois. Donc l'aide était très minime par rapport à l'immensité de la plaie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous remercions le président au passage pour l'aide qu'il a bien voulu accorder à notre secteur, mais la solution n'est pas de l'aide. La solution, c'est de mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre aux artistes de retrouver leur dignité. N'en parlons pas donc de l'inspiration en cette période de vache maigre, point inspiré. Elle n'est plus là pour ne pas dire qu'elle n'existe plus cette inspiration-là. L'humanité, elle est importante parce qu'elle préside au destiné de notre création. Si maintenant nous voulons nous faire sortir de cet état humain parce que la stabilité psychologique, la stabilité morale, la stabilité intellectuelle sont gaz d'une bonne inspiration. Ces éléments-là sont quasi absents dans la dynamique artistique aujourd'hui. L'inspiration est en train de vivre sa belle mort au Sénégal à cause des effets néfastes du coronavirus. Quel est l'impact financier qu'a eu justement donc ces interdictions-là euh, Votre chiffre d'affaires, combien Quels sont les contrats clés auxquels vous avez dû renoncer À la veille de la déclaration de l'état d'urgence qui a occasionné la fermeture des salles et des rassemblements. Espoir La Banlieue avait un contrat avec la Banque mondiale pour célébrer la journée de la femme qui était le mars et ce contrat est tombé à l'eau. Espoir de la Banlieue est une compagnie qui est en opération 5 jours sur 7. C'est-à-dire si la semaine fait 7 jours, les 5 jours, Espoir de la Banlieue était en opération et c'était des contrats. Donc le mois, n'a eu qu'un seul contrat. C'était un contrat avec le ministère de la Jeunesse pour sensibiliser sur le coronavirus. Et c'était un contrat publicitaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre stratégie de redémarrage qui est en envisagée, des artistes seront laissés en rade parce que Espoir n'arrivera plus à supporter. Si vous rendez compte que les artistes ont en un moment donné choisi de vendre des choses leur appartenant pour pouvoir retrouver leur dignité, donc la crise n'épargne personne, y compris Espoir la président de la République. Nous lui lançons un appel pour qu'enfin que nous puissions retrouver notre dignité. Retrouver notre dignité, c'est redescendre sur le terrain pour aller faire notre travail convenablement en respectant le protocole sanitaire. Retrouver notre dignité, c'est avoir cette possibilité comme les autres sont en train de jouir à cette possibilité-là, de travailler. Rien n'est plus difficile que d'être dans une famille et ne pouvoir même pas participer, si minime soit-il. C'est très difficile. Et nous sommes en train de vivre des situations indescriptibles. J'en perds même mon latin en disant ça. nous sommes meurtris dans l'âme parce que touchés. Nous sommes meurtris dans l'âme parce que la perception de notre participation à l'économie n'est pas prise en compte. Il mérite plus d'égards. Absolument, mm. absolument. Plus d'égards, plus de considération, plus de prise en compte, leur implication également. Et aider les artistes à organiser le secteur pour que le secteur puisse encore et encore générer des entrées au mm. Sénégal. Et c'est possible. Merci beaucoup Bachir. de remercier votre hmm. organe. Dès de la culture, de l'avoir suivi.